ñu nuyu leen laataa ñu leen di jox li gën a fës tey ci yéenekaay yi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi centre hospitalier national Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba dina am démarrage officiel tay ci altine fukki fan ak ben covid-19 daa ci am impact socio-économique ci continent africain naka commission économique sur l'Afrique génne a rapport bu wane ni fi ci Afrique lu tollok 58 millions yi nit ño nek ci ak ndol gu metti gannaaw ba Clédor Sène togué ci plateau émission daa taxe taxé ferrailleurs yi de receleur, ci la ñom ferrailleurs yi décidé yóbbu ci yoon sen accusateur bi di Clédor Sène fi la xibaar yi di yam day ñu leen di ñaanal yendu jàmm